muy baaba Diaw di Thiam production mu nekk koo xamante ni mention spéciale à lui di ko ñaanal yàlla nekk ci kanamam rek yàlla na gën a réussir tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom muy Jackson combat ak ñàkk jariñu pendant avant et après ak li nga xamante ne moom moo nekk ci kanamam dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu waxtaan ak maa ngi lay ziar. Fatma Diagne maa ngi lay fay maa ngi sant yàlla bu baax di jël séntu bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal suma yaay fu tëdd yàlla na gën a fu mu jógee di ñaanal mère aw ak père Bakar Seye. ak imaam Hamidou Ndiaye yàlla na yàlla yërëm te xar leen ajana maa ñaan suma sëriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy yàlla na fi yàgg lool te wér ak suñu capitaine Mame Cheikh ak Mame Babacar maa ngi ñaanal ñëpp te ñaanal Moussa diine yeeg Moussa daal yëpp di Sénégal yëpp ñuy waala waala yeeg waa Diamaguène waa Boune waa Cambérène waa Diamaguène waa Guédiawaye maa ngi nuyu ñëpp daal Jackson duñ fi nekk sa combat ak ñaq waxtaan nañ ci waxtaan nañ ci euh, li nga xamante ne dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy euh, actualité bi sa combat ak ñàkk jariñu mu nekkoon combat boo xamante ni Jackson ni nga ko bëree pendant avant et après combat bi euh, combat yi nga bëree yëpp ak combat ak ñàkk ba yan moo ci ëpp coow ndax gis nañu combat bi dafa dafa dafa dem ba dépassé gars yi ci côté waaw am nañ combat façon combat bu nekk ñun moom lamb dootuñu dépassé parce que màgguñu rek bëre dañ nekk xale bu ndaw. di jàng di bëre di jàng di bëre dem bi nga xam ne jàng beeg bëri ma ñu ànd ñu dem bëri yi combat ñax tamit waaw wax dëgg yàlla nag combat bu am coow la woon ban nga jël sax yaakaaroon ñoon dina dina demee nii quoi mais nii dina dugg si dara ko xam mais dem ba si biir xam ne lii lii la lay jural quoi mais coow bi yaakaaroon si woon laam ñu ni mu métti ne yaakaaroon dina méttee nii tamit quoi. comme cadre métti kon noo tuddee métti. suñu suba tere ñoo bokk dëkk ñoo bokk ay suba tere ñoo dëkkaale coow lu bëri xas-xasoo bi xam nga yaakaar moom dina demee nii quoi mais sant yàlla yàlla sottal na ko si jaamu bëri nañ si jaamu yàlla may na ma ndam ñoo ngi santaat yàlla bu baax du suñu njàmbaar du suñu doole du suñ kattan yàlla ñu suturaal ak jour boobu faraak ñun ànd ak ñun waaw ñoo ngi santaat yàlla bu baax baax. Eh. bi nekk sa ñaata combat. bi mooy sama quinzième combat. ñaata victoire. cross kii euh, treize treize victoire deux défaites. Euh, Jackson euh, ñu xool ni. da nga tegle macha allah di ñaan yàlla mu yokk da nga tegle euh, quatre quatre quatre quatre victoire su ma juumul Pape ndoy Naar Sokaas Ahmed Dem ñaq jariñu mais sa quatre combats yooyu ban moo ci gën a métti sa combat ak Ahmed Dem wala ñaq moo ci gën a métti. comme métti si côté man si làmb biir làmb ji wala lan. comme ban moo ci gën a yomb quoi comme le fait nga bëre ak euh, Dem jël ñaq euh, yan moo ci gën a yomb. combat yi moom daanaka benn yomb si combat yëpp day saf si côté yëpp côté entraînement côté financement yëpp. amul combat ba si yomb waaw dafa ñoom ñëpp ay ndaw nañ mhm. Mhm. ñu gis ni après da am benn level si boo xamante ne dañ fay egg macha allah euh, lan moo tax génn génn duggaat waxoon naa la ko keroog ñaq jariñu am lu mu mais nga ni ma ñaq taxul may entraîner leneen moom moo tax yow sa combat ak ñaq dañ la déewoon ni combat bi nii lay demee ndax gis nañ ne ñaq sax am na lu wax que ni xam nga li ci lax su dafa bari côté. jaay bekk yooyu noonu mais réellement sa combat ak ñaq am na loo ma waxoon te li nga waxoon da koo def dafa am foo tegoon sa bët wala daam am loo xam te ne da nga koo liiroon. waaw man moom chaque jour mooy li may wax rek man lu may wax sax bëriwul parce que yàlla man na tolloo noonu man jëf laa gën ma nekk a wax te chaque jour lu may lu may signature noonu laay ñëw brisé maa ngi koy wax ci biir wax naan dama du yàgg combat bi dama ñëw kalaata la daan la. noonu laa bëri de moom ak yeneen combat yi si jàll de am dem loolu laa ko woon keneen ak woon man moom lu may wax sa jur rek victoire ak défaite yàlla moo ko yor mais fulla ak fayda moom man dama koy wane chaque jour damay wane njàmbaar wane fulla wane fayda wane entraînement bu wóor su ma demee jour man lu ma yàlla ma santee ko yàlla quoi bi mu hmm. yi boo woon ak bii dafa différence lan moo tax loolu est-ce que Jackson euh, kii bii nii état physique bii mu yor ñu bari amul amul critique amul dara état bii nii ak yi nga doon euh, état yi nga doon jël am na différence. waaw am na différence bu baax. dama ñaari dernier combat dama jël maas maas boo xam ne moom moo ko. dañ ñee ñax nag ñax daf ma xas xam ma wax ay waxam xas ma xas xama ma mais dafa gara yooyu si làmb la bokk moom ku ne da ngay xool noo daane la sa ko mer mu gën a yokk tërëng bi gën a xam moom dafa gaaw sa entraîné waa daal maa sant bu baax ko si papi waaw moom tamit def na si lu bëri quoi ak la guerre moom tamit def na si lu bëri coach Pa Omar xam nga gars daal liggéey nañ ak coono waaw defaraat daal bu baax. da ngaa naa poids nag. non bëri na mais xaw ma nag exactement ñii laa wàññi hmm, mais daal mooy loolu noonu. Mhm. entraîné nañ doole ak maas. Mhm. Hmm, entraîné ñu dëgër kese. Mhm. Euh, ñaq dañ koo jël sànq mu ne ci komba bi mooy entraînement avant mu ñëw ci bunt bi dafa am ay problème yoo xam te ne seen ñaari camp yi dañoo daje mu nekkoon problème bu metti ba nee na yow moo la njëkk a ñëw mais dañ la favoriser nga njëkk a dugg bàyyi ko ci buntu bi est-ce que favoritisme am na foofu noonu yéen ñaar kan moo njëkk a ñëw. nit na <clears throat> da ngay naajal quoi bu daan da nga commencé wax yu salte wala yi parce ñëpp ñoo yem ñàkk bis nañ seqoon du tax ñu reyante du tax ñu nekk ay noonu moom wax na ko si wax da day naaj ñun ñëpp buñ deewul nii dañuy xëy màgget te buñ màggee dañ ñeneen ñëw dañ koy nettali kon lépp loo nettali na nekk lu rafet yàlla xam na ne ñax man maa ko njëkk si stade bi te man billaahi wallaahi taala man sama oto nga toj ak sama yeneen oto booy barke alxuraan nga ngaa toj mais moom yooyu ak làmb ñoo ànd quoi garaawul bis bi moo moo demee noonu promoteur dafa tëgg bis yu bari xamul bis nu mu toll noonu mais ñun mënoon nañu jëlee suñu kër boole ñu police ba biir esaat moom mënoon nañu ko jëlee seen kër boole ak police man man man man man man démb mënoon naa bañ bëree. ndax booy su bëggoon sama oto di sànni xeer di sànni xam nga oto mbër bu mu toj veeram ya loolu rëcc loolu bëggoon a yàq combat bi non nu ñu bëggee yàq combat combat boo xam ne yow da nga jàpp ne yow leer na yow da ngay daan ah, mais moom nee na moom nee na day métti rek mais ngembam du laal suuf waaw ah, lan moo laal suuf kon si moom ah, day déposer recours de waaw loolu moom affaire lan la affaire moom mooy loolu rek rek amata man man moom ku ma yëpp ku nekk rek hmm. si signature nga may wee ku ma yëpp ku nekk su ma toog ci interview nga may wee hmm. mais jour làmb ji rek ba nga dogal rek hmm. xëppoo soow njaab njaabaat waaw xam wala wala bi taxaw na de. mais làbbali bi ngay indi woon. Jackson yaa yaa làbbali wala yow lañ làbbali ndax gis naa ne pour une première fois boobu ba mu dalee si tan sa la ardo te ñàkk nag ñàkk macha allah dafa cordé woon kii de. loolu xuri la loo xuri la loo xuri yow ñàkk. xam nga wéy mi am xuri ñàkk maa mën a yóbbu ardo. ñàkk yóbbu ardo. ku ñu yóbbu ardo koy gis mu fa daanu mi ngi naaj mais moom nee na xamul lan moo ko naajal mais du. waaw yow di ko arrêté bàjjum gerte yi ba mu daw génn man daw man avertir bi moom moom ñaari avertir man ñu am benn ndax man maa dóor si. ginnaaw dafa daw. loolu lan la bëree ak yow ba génn saako yi. ñax ma dóor ko ay rafaal yoo xamante ne ay man su ma déclenché sa kaw. Mhm. nga tal leneen luy taxaw de riposé de. Mhm. man waala waala laa. ñu ñëw si ba ñu ñëwee si digg géew bi gis nañ ni euh, Jackson loo musul def nga def mhm. Jackson nag ñaq nag. ñeneen ñi nag duñ benn ndax arbitre bi dafa sifflé ngay liir adversaire bi lan moo tax loolu parce que yow attaquant la la gars yi kii woon prip ak dib bi la ñaq da nga koo xamul woon wala da ngaa bëggoon a xool ba xam lan la indi wala ndax gis dañ nga liir adversaire waaw combat bu ne amulum laaj mais dem nañu lay conseillé ku ne lan ñaq da ngay romb ñun la sa tànk la si kon su ma ñëwoon tey rek ñëw rek maamal si kaw mu jël sama tànk daan bu waa danaan Jackson dafa yëpp man yàlla xam ne man ñë ñàkk ñëwaloon naa ko ci sama tàng wax naa ko ak si foofu noonu moo tànk bi laal na ko dama ko delloo rotation daa di ko tël waa na man liir combat bi moom tamit mu ñëw wax dëgg yàlla ma yaakaaroon def ko pour man day dawul comme ni mu naan def wéer wéer mu ñëw dëggal boppam. mais dëggal boobu noonu dëggal boobu moo ko rey nag. sa mënin la la fekk. waaw moo tax mu da ña ñax ku yàq ku yàq làmbam dóor yi ma ko dóor mu dem arro arro dem arro ñëw mënu fa sax taxaw dem bu ñëwee ñu ko delluwaatal affaire di kii loolu day am lu mu def eh, nga daan nga mais est-ce que Jackson def na erreur ci combat bi. ndax def naa erreur moom yàgg saa Thiès a boo leen bëree daan da ngeen def erreur ngeen bëree daan da ngeen def erreur ban erreur nga def. ah gars yi moom chaque jour ñu ma Jackson na erreur yi man waaye yàlla naa def erreur ba nekk roi des <laughs> ban erreur nga def. Hmm, waaw wax dëgg yàlla man gisuma erreur bu ma mën def ñëw naa wane na ful ak ñëw bëree daana gisuma erreur rek peut être nag ñu si am nañ gis erreur mais gisuma erreur. gisoo jariñu nga daan ko mu contesté ne bakkanam la ci teg day metti rek mais du laal suuf dégg nañ ko ba sax ci ay waxam mu ne yow sa trois derniers combats yëpp recours recours recours gars yi miin nañ ko ci yow par recours ngay gagné. sama trois derniers combats man man ak Amady Deme laa fi defoon des recours. loolu mos am recours loolu daa am foofu nag boo koy recours am fa man ak Amady Deme moom man benn combat laa mos am muy Amady Deme. mu ne ko du ñax ma damaa yaakaar daa bëgg ko suul si stade bi ah ñax nag gëm yàlla waaye wala bëgg ko rayee ñax li mu wax lépp si signature bi daanoo nga boo boo boo génn ngay daanu boo ñëwee si stade da ngay daanu boo ñëwee da ngay daanu nga yeewal xale bu ndaw jàppale dóor la ba nga daw génn toj sa bakkan bi nga ñëw mu jàppale jëloo kenn ko jaan sa champion nga ni jël ma ko daan kenn ko daan champion. yéen na ko daane. ndax daa daw jël ma ma def rotation fii si ngemb li tël ko def rotation tëlal kat boole ak tël ak tànk bi bu cax ko fële. waaye léegi damay laaj moom moom ay moom la la ma def neex ay def ay ree. léegi mu def trois bi. waaw ma def ay ree ñax boo ko waxee xoolal loxo bi xoolal loxo bi loxo baa ngi si kaw xoolal loxo bi. waxuñu si waxu loxo bi nan wax si waxu fees bi ak ngemb li laal. moom moom fees bi laalul fii moo laal. waaw garaaw yooyu yëpp bu bëggee na ñoo ma jox drapeau mu dem waaw na ñëw jox lu ci bañ bañ waaw mën naa ko jox 25 bi tax mu yóbbu loolu garaaw mu di waaw mën naa ko may 25 bu bëggee léegi ma wéebu woo ko ma wéebu 25 hmm. mu dem rek defal ko wóor non ñàkk day dugg léegi mais dafa am benn affiche boo xamante ne dañ koo gis euh, affiche bi su ma ko wanee Jackson Jackson day choisir léegi Jackson maas léegi Jackson mooy choisir quoi ci affiche bi léegi moom affiche bi nii kan la ci bëgg kan la ci bëgg a bëreel ana affiche bi sax maas affiche baa ngi nii affiche baa ngi nii léegi Jackson affiche baa ngi nii yow yaay tànn mbër bu la neex koo xamante ni Jackson pare na pour bërewaat ak moom mais fee nag fii est-ce que Jackson dina mën a choisir ndax booy yi dañoo saf ndax ñi fii ñi fi nekk nag macha allah est Jackson sax ñoom dañ ñii dañ ko jël mais tey ñii nii. gars yi ñoom ñoo def affice bi nekkul ni ñun ñoo ko créé. waaxlu làmb kenn ku nekk nag joxe na li nga xam te ni moom la war a wax mais Jackson. kan lay choisir bu doon choisir fii affiche bi mas affiche baa ngi nii yéen nag noppi leen dégg ngeen yow yaa choisir. ah ñoom ñëw ay champion lañu moom moo fi nekk ah pour gars yi ko gisul bu baax affiche bi ah Yekini Junior Diène Kairé Zos Modou Anta Thiat bu Boy Bambara. Gamou Gueye Tyson 2 Gora Sock léegi nee nañ yow yaa choisir tey bu ñu la doon def nga nga choisir adversaire yi. waaw moo la wax ne ñun moom xam rek ay mbër lañ tamit te ba léegi nekkuñ champion comprendre nga ñu ñaan yàlla nekk champion ñëpp ñu si làmb booleel. mais am na am na koo xamante ni Jackson bëgg nga bëri ak moom. ñu moom tolloo mooy loo war a xam man da nga gis mbër yi dem làmb teg ndënd dëkkante fii. dem ci plateau yi laaj man du ma genre boobu noonu. man genre mbër bu cool laa bu jàpp sama bopp. ku ma laal ba booleel ba bëre moom. mais sa adversaire potentiel la. waaw mooy lu ma wax rek. ñi fi nekk sa adversaire potentiel est-ce que nangu bëri nga. bëri waaw nangu naa ñu ma ñoom na ñoo ma bëre ñoom ñoo ngi te yow doo bëre ñoom. doo bëre ñoom de. lan moo tax doo bëre ak ñoom ñoom ñoo di jub si loolu. non samay gaañ noonu samay sama gaañ noonu am na am na ñaar ñu si nekk ñoo xamante ne duñ laale quoi. Hmm, ñaar ñoo xamante ne ñu ngi ci affiche bi doon laale. Hmm, duñ laale waaw. ok ñoom ñoo di jët ci làmb woon. samay gaañ noonu man maa doon bëre ñoom. comme ñan dañ ma ji loo xamante ne du ma bëre ñoom. non garaawul loolu bu si accès rek mooy loolu. Hmm. mais doon choisir. man may choisir yow kay làmb ku ma booleel kay man maa ngi fi amul ku may choisir man kay instant bi làmb bàyyi ma jéem a tram nangara ba nekk instant bi moom comme instant bi moom ab ndongo lañ rek taalibe lañ ci ñooy jaayante. li ngay def nii dara jeexal booy yi nga naan ay. ban booy jaaroo ma benn booy. instant daal gars da ci gars yi rek. <laughs> dañ ma ko ñu ne Jackson ni mu nii lan moo tax bandi géew la quoi dañ géew bu loolu neex ngay def loola saf. dégg nga gars yi instant bi ñëpp démb ba démb ñëpp moom lañ doon wax ne yarum gi mu ci biti la yam mais par lamb ji. non man kay ñaar yàlla band biir géew même biir géew sax moom jàmm laa siy woote. mais da ngay ruube ah, man boo wootee jàmm ñu bëgg la duma ko tamit ba bañ loolu mais man jàmm laay woote su ma moom man su ma ñaan yàlla laa koy wax. Mm-hmm. ki may laa ko dante bu ma ko gaañ. yow ñett ñu ngi doon rek kii ñëpp da nga ah, du bu bëggee kii da ngay bu la bëggee gaañ tamit da ngay doon ñëw fa di di mm-hmm. ah, ñoo lay meroo dañuy signature xam rajo lu ne ñu waxoo. par mooy xaaruñu xool ba xam ñax njariñ dañ ko jot wala duñ ko jot. <laughs> aja gars yi ñaq la ñuy woo après la pluie c'est le beau temps. benn parenthèse la woon ah. parce que après la pluie c'est le beau ñaq ak euh, Jackson bëri nañ mais tamit benn takkusaan la woon rek mu jeex ñu wax ni gars yi ñoom muñ ko yóbbu komba bi fu mu àggul ñaq nitu jàmm la nekk nit boo xamante ni day reetaan kaf foo reetaan Jackson tamit pareillement mais supporters yi nañu kii quoi nañ bàyyi kii ndax ñaq de ba tey affaire yi ñoom ñi ngi guerre te guerre nag baaxul ndax dañuy dugg ci mois de janvier décembre bi xam nga ñu bëgg a dundaat beneen nouvel an Jackson puisque sama confrère yi jël nañ la ba pare dañ doon barkeerlu rek euh, ñaq jariñu woon nañ ko maleureusement jotuñu ko euh, mais ban message nga leen di jox. ñaq waaye waxal ak moom rek. dina dina dina ñaq sa gaan la. non man ñàkk ñoom ñëpp samay waay lañ ñàkk sama partenaire la. ah mais mais mel nii mel wax ñeneen ñi. Jackson bu wax bëgg maa jaxase noonu. ah dégg ak ñaxay gaan ngeen laa la wax. waxal ñëpp samay gaan lañ du ma sa gaan. ñëpp samay gaan lañ. ah waaw mooy loolu noonu rek di jàmm rek di nga ñaanal wér di nga boobu la jeex na jeex na quoi moom su ma daanoon tamit ma ko koy mën na jox ndam foofu noonu. kon santaat yàlla bu baax moom nan nangu loolu noonu dem entraîné war xam ne champion la mën na daan ku ne si làmb xale bu ne si yoon la xam nga mooy loolu noonu comme bi mooy dernière chance booy bi na dem jëli mag ñi kon ne waxoon naa ko kay naa si bii ngay ngay dëj dëpp yow bii ngay retourné da nga jëmee ñàkk yow yow lan la ñàkk naa la ko naa ñeme naa war si jour waaye dinaa la war ko ñeme xam nga yaa ngi ko woon seetaan nga. fekkuma ko sama cadreur bi sax di ko ñaanal bon rétablissement Lamine maaxalla comme Baye moo bari woon misik cat la. waaw di sant daal ñëpp di Baba Diaw bu baax. Eh, mais Balla Gaye lan nga koy Baba Diaw xam nga di ko ñaanal tamit bis bi xam nga xam comme réussir na mm-hmm. yàlla na tëgg ko ba Baba Diaw waaw loolu moom wërsëgam la man moom non man moom kenn du ma woo quoi man laxaat nañu woo wala am ah, waaw mais man moom kenn waaw ñoom nañu woo boo mu ñëw taxaw rek jaaga tëgg la boobam champion la xam nga Balla tamit champion la mais nag ñoo ngi ñaanal ndam yal na ko yàlla may ndam bu baax a baax di ñaan tamit bis bi màkkan suñu yàlla na bis bi réussir te yàlla yàlla na bis am jàmm tamit comprendre nga Boña tamit champion la ndaanaan la wax dëgg yàlla parce que dem ba bëre Balla Gaye ndaanaan nga kon dañu koy ñaanal jàmm mu ñëw tamit wala fulla wala faayda Balla tamit ñu koy ñaanal jàmm yàlla dafa ko tawfeex may ko combat may ko ndam daal ndam bu sedd gi di bëggee ñëpp di ziar ñëpp di bëggee képp kuy waal waal ñu ngi lay bëggee di bëggee tamit waa di bëggee buun tournal yëmbal ba rue 15 ba teen ba bett di bëggee tamit xam waa jàmm gën Père Maam Jaara guy ga sam-sam bi booy ñax jëriñ ak samay booy benn nañ lambaañ boole woon nii rek parce que foofu ay waal waal dëkk di supporter ñax dama supporter kon après man ñax ba ma recommandé xam dama koy supporter comprendre nga waaw ba ma recommandé wala ma bëggee ko parce que ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk gàlla daal instant bi ñoo bokk waaw ñoo bokk lu mënul séddoo xam nga hmm. bëggee sama gaa yëpp waaw ku lim jum di bëggee ñoom am ñoom baaba laa jóob xam di bëggee maire bi Adama Sarr na si bu baax di bëggee tamit xam nga mu njaay directeur grand liiru liiru sa xarit maa ngi koy bëggee bu baax a baax waaw di la ñaanal jàmm Père Diaw xam na si bu baax Kalilou Côte d'Ivoire xam di bëggee ñëpp waala waale maa ngi bëggee ñëpp képp ku sonn si combat ku mel ñoom laay bors ñoom ñu jaay ticket ñoom moo faaya xam nga waa ñoom alo ñoom njoon xam nga moo rakk seexu yàlla yi borom duggee beneen rek aali ama di bëggee ñëpp daal di bëggee sama waa gox ñiij màlla kër Momar Sarr ndimba góolam gaay gaay di ñaanal tamit xam nga Elton le 28 la bëre la war a bëre moom Abdou Diouf yàlla na ko suñu borom may ndam ndam lu sedd guy xam nga maa amit ñaa combat bi nag Lamine sonn na si bu baax Lamine ñang waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm sama sëriñ sama lépp di la bëggee Fatma di ñaanal ñëpp jàmm waaw. amoon mbégte contentement ñu doon suivre sur Kewel Info ah, mais Gora Wally maa ngi koy ziar bu wér a ah, moom mi nga xam te ni à fois mooy borom yëre yu naay si ensemble la ma jox mais damaa sol chemise bi bàyyi foofu noonu Gora Wally maa ngi lay ziar ma ah. man ma waaw maa ngi bëgg bu a baax ku soxna si combat bi Mourou moo yor horaire bi waaw lu mu jàppul baaxul Moussa Boy Kolobane xam nga xam nga yaa ngi xooba ñun ñëpp maa ngi bu baax a baax mu duma mention spéciale eh, pare na Babs maa ngi lay ziar borom dàll yu naay si macha allah kontaan na bu baax a baax a baax combat Balla Gaye ak Boy Niang nga génnaat fi yow ak Gora Wally ah yeneen combat daal yéen moom ah sponsor leader yi nga xamante ni ak ki nga xamante ni mooy sama xarit bi ñoom ñoom Mamadou ñoom ñi nga xamante ni day ñëw ne ma kaay jël jox ma cuusi jox ma ensemble yi kontaan naa ci yéen bu baax a baax jaajëf.